Euh, waa jàppal ma jàpp bu international ànd liggéey sama gox ànd liggéey suñu gox tey moom moo fi ñëw tey nemmeeku suñuy doom eh, fii ci daara ji waa di wax ni que ni waa jàppal ma jàpp eh, ñoo boole seeni ñaq seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm ñëw indi ko fii bokk kook suñuy njaboot ndaxte kat boo gisee ñu ñëw fii tey ndax ñaanu xale yi am na solo torop ndax ku xool xale yi xam ne xale yi ku ñu ñaanal macha allah seen affaire dina jëm kaw ndax lu ñu dajale indi ko fii Euh, association bi moom moo ko dajale indi ko fii ñun ñi ngi soog a door di wax ni que ni suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm moom lañu boole indi ko fii du xaalisu politique suñu ñaq moom la ñu dajale indi ko fi bokk ko suñuy doom. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Kaolack euh, man la Daba Bob coordinatrice de la région de Kaolack. bu jàppal ma jàpp international su couvert de ànd liggéeyal sama gox ñu ñëwoon fii tey si daara Serigne Mor Lo omarloo euh, Omar euh, ñëwoon fii def si ay don mu nekk loo xamante ne tamit suñ présidente muy Ramatoulaye Diouf international moo amoon xalaat bi xalaat bu rafet macha allah ñu koy rafetlu bu baax a baax di am kontante nag di teew fii ndax kiñ fi fekk tey di di Serigne Mor sëñ Umar Lo euh, wax dëgg neex yàlla nekk na suñ papa boo xamante ne gis nañ ci moom daara liñ fi fekk daal neex nañu te te sedd na suñu xol di wax ne tamit association bi muy jàppal ma jàpp ànd liggéeyal sama gox Sous-Couvert de ànd liggéeyal sama gox ñu ngi yëngatu ci wàllu donc comme bii ni ñu def tey ñu ngi yëngatu tamit si wàllu formation des produits locaux transformation des produits ko waaw ñu ngi yëngu ci loolu yëpp di kontaan am kontaante bu baax a baax a baax di nuyu waa association bi yëpp tamit di jaajëfal ñëpp ndax association bi politique taxu koo jóg dañoo ja dañoo dajale suñuy ñaar dërëm ak suñuy juróomi dërëm ñëw fii nii àndandoo ak suñuy rakk journée bi ak suñuy doom ngir bégal leen. asalaamaaleykum. ñu ngi leen di fay di leen gërëm di leen ñaanal yàlla te di wax ne li kontaan nañ ci torop ndax li tax ñu gën ci kontaan mooy suñu sëriñ bi andil ñu leen ndax ba mu ko jëlee lu ñu wax lu sotti am borom mënoon na ko yóbbu feneen waaye fàttewul démb te la mu wax fii lépp dëgg la li mu wax fii lépp dëgg la wax dëgg yàlla moom ñu ngi koy gërëm ba ñoo gërëm kenn gërëm ko moom mii di sëriñ Aliou Cissé mu ndaw mii toog ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant di gërëm borom daara ji te di ko ñaanal yàlla tey sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko ngeen yàgg fee ñëw fekk ko fi yàgg jëflante ak moom ñu ngi leen di ñaanal yàlla tamit fépp fu ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yegg yàlla na ngeen dem bay yore procès yu màgg yi daal di tabax ay jàkka di tabax ay daara di tabax lu ne daal lu ngeen bëgg daal yal na leen ko yàlla defal ci yoon bii ngeen jaar noon ngeen di jaar beneen yoon ndax fimne mu bari na lool waaye ngeen jog rek na ñun li moo ñu tax dimbali nit ñi rek ta yalla tax nit ñaa étage nit ñaa def lu nekk waaw dërëm bo am am foko duggal dugal ngeen mëna am rek wuus ko ne dañu koy yëd daara yi inshallah alquran mom ku ko lebal rek eh, dana la fay yan na leen fay yan na leen yalla fay yalla yagal leen ci yeen it yéen nga xamne yeen ay njiit yi leen fi eh, may leen wër may leen fan wu gudd ba ngeen jité ci lu bare bare bare ba ngeen màgget jox seen i doom wala seen rak ñu ngi leen koy ñaanal yàlla yal def mënuñoo wax nak maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax bisimilah. egg si ngeen fi ngeen ko a indi ah Baye Cissé jërëjëf li Fagnes wax rek lay wax Baye Cissé bu la neexoon nga fàtte dem bu yóbbu ko feneen ndax loolu moo fi fees dell waaye nag fii nga nga def ndax sëñ daara gis nga ko nu mel ci sa papa num yëkëti non non kon li boko défé duñu bét yeen ñi andi li jërë gën jëf yal na yàlla fay leen sëñ daara mi tax ngeen jóg bu leen ñaanalé lu ngeen yotu da ngeen ci jot ndax lëggéeyal nako alquran lëggéeyal nako sëriñam kum ñaanal ku ne tibbee ko ci xolam ñaan nga da ngeen ci jot ta incha allah da ngeen xamné ñaan gi fi ngeen andi li du ngeen ko mësa a rëccu ndax ñaan gi da ngeen ci jot yal leen yalla fay yal na yàlla barkel seen yëngatu ak seen dal te yal nay seen kubbeekaay barke alquran barke baay asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah alamin gannaaw bu ñu sant yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam man la Baye Cissé doomu imaam Mouhamed Cissé fii ci Medina Baye di set ci ku ñu Serigne mi nga xam ne moo nekkoon ilimaani jumaa ji ñi ngi sant yàlla bu baax di sant association ànd jàpp ma jàpp. international sukk feer da àndal liggéeyal sama gox ci njiital Rabatulaay juuf soxna Umu Kamara soxna Daba Boob coordinatrice Fat Seen trésorière ñu ngi leen di sant ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey ci Médina ci kër Serigne Darou Omar Lo Serigne Darou kenn du ko laajte fii ci dëkk bi su ma ko waxee yaakaar naa ñu bëree bëri xam nañu ko imaam Serigne Aliou Cissé moo ko joxoon fii 1972 suppal ko daara ji man mii di wax ak yéen maa ngi fi dugg ci daara ji 1982 daanaka at boobu la sama sama maam gaañu at boobu laa dugg ci daara ji bokkoon doon jàng ci daara ji doon jàng école Medina gi boole woon ñaari école élémentaire Medina Baye fi laa nekkoon fa dem ba am bi may am certificat année boobu ci laay am ci laay tari alquran muy nag 1987 1988 wax dëgg yàlla muy nit ku jàppandi comme ni ngeen ko gisee nit koo xam ne jàngale jàngalekat la yarekat la jàngal na fii ci dëkk bi ñu bëri yar na fi ñu bëri tey suñ ko indilee lii teraanga yi ngeen ko indil tey di door di door a commencé dañ ci am dañuy gis ne yàlla nara na leen dimbale ndax def ngeen ko ko war a def ndax yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax ne ñooñ alquran ñooy ñooñu yàlla te ñi gën ci xeer wi tamit mooy ñi nga xam ne dañoo jàng alquran pare di ko jàngale kon nag moom suñu demee ba nga xamee ne fi ne ni léegi tey mu am juróom nekk ci daara ji nekk ci ay njabootam Cheikh Ibrahima Lo wax na léegi am na ku ñuy wax Baye Cissé ñu tuddee ko suñu maam tamit mi ngi ci daara ji ak mbooleem ñi nekk ci daara ji moom ak soxna yi muy sëñ euh, yaay Adja Fatima Fatima Niass ak Khadija Toob ñoom ñëpp am na ñeneen ñu ngeen fekkut euh, am na beneen maire bu sant Touré bu fi nekk Arab ñaan ak ak Ami Touré ñooñ fekkule leen fi waaye ñoo ñëpp ñooy soxna sëriñ bi wax dëgg yàlla di jàppalanteeg moom ndax daara yombut maanaam ku yàlla def nga nekk yaayu daara yàlla def na la ku nit ku baax ndax lu nekk nga gis ci àddina waaye donc soo ko boolee xoola bu muñ rek ëllëg gis si biir da nga gis teraanga ci alquran ndax alquran moom ku ko lewal yàlla ku ko mu fay la waaw ku lebal mu fay la te yàlla wax nañu ci alxuraan ne fay gi du nekk benn rek de fukk lay dale jëm ju jëm fanweer jëm juróom-ñaar fukk jëm ba lu amul lim kon nag su ngeen defalee alxuraan ñu ngi séntu ci yéen teraangay ëllëg ci seen i njaboot ak seen liggéeykat ak lépp lu ngeen nekk teraanga alxuraan dana leen fekk ñu ngi leen ñaanal yàlla loolu te am na am nañ yaqiin ne loolu dana dana tàbbi balaa yàgg yàlla na yàlla defal leen tawfiq yàlla ah, defal leen barke defal leen teraangay àddina defal leen teraangay àllaaxira ñu ngi yaakaar loolu ci yàlla di di ko ñaan yàlla di tawasul ci barke yonent bi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ahmed Tidiane ak ak yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne teraanga jëpp du nit am rek ci moom ko jëlee wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm soxna Oumou Camara jërëjëf jërëjëf jërëjëf ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yokku leen yàlla barkeel li ngeen nekk yàlla defal leen tawfiq yàlla ci kanam rek ngeen di ne incha allahu ndax daara moom ko defal yàlla nga defal te yàlla moom ko defal dafa lay fay ndax bàyyi nee nañu may may yi am na waaye fay fay yàlla yi yàlla fay lay gën def ci may soo xoolee alquran am na may waaye fay fay moo gën a bëri may may kon mooy ku def benn rek yàlla la fay ñaar ba ñett ba juróom ba fukk ba lu amul lim ñu ngi leen ko yaakaaral yal na yàlla nangu yaakaar yëpp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa